bisimilah ine wala yàlla jërëjëf Serigne Touba jaaraama maam Cheikh Ibrahima Fall mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen nuyu ku ci nekk di leen siyaare di leen jox seen yéeguwaay ku ci nekk bi ko buur yàlla jox di ñaan émission bi ñuy def mu fekk leen ñëpp ci jàmm ci barke Cheikh Ibrahima Fall seen émission bu mag bi nag na tey muy émission bi nga xam ne mu wër adduna bi nga xam ne monde entier daanaka ñoo koy suivre di ko topp ñoo ngi siyaare waale waa diaspora bi yëpp nga xam ni suñuy soppe lañ suñuy mbokki taalibe lañ suñuy mbokki jullit lañ nga xam ni bis bu yàlla sàkk rek ñu ngi ñuy topp ci émission bi di wax seen xalaat ak ni ñu ko bëggee émission jëf jël mooy ñëwaat tey nag fii fan la ñëw caaro yi muy post caaro yi kan lañ seet si tey ñëw nañ ci beneen version ndax war nañ émission bi dañuy dem bi dem ci Baay bi nga xam day jaay café dem ci góor yàlla bi nga xam daa ne ci tool yi te nekk góor ku ci nekk ci li nga nekk di ci yëngu dinañ ñëw seet si law jël dina la seet si def ak yow émission xool ci nan ngay liggéey ak ci ban tolluwaay nga nekk ba yegg nga tey tey nag ñëw nañ caaro yi a ah, ci doomu Caaroy mën nañoo wax doomu pikin doomu Ginnaaw Raay doomu postu Caaroy doomu Jàmbagën ah doomu Tabla Tiwaan muy seen xarit seen soppe seen am di jàmm di Baay Faal bu baax ku yàgg a gëm boppam koo xam ni monde entier bi yëpp daanaka xam nañ ko mooy kan mooy Moustapha Moustapha nag suñ ko waxee te àggoo ci Moustapha kafe gi nit ñi duñ ko xam mooy Moustapha kafe nga xam ni ah def na lu ne ci kafe waaye la ca kanam moom lañu naan tungalu teew ñu nataal ñu ko bëggee xam dañuy topp émission bi mag bi muy jëf jël ànd koog waa TMP Events muy top modèle ñu dem ci Moustapha laaj ko fu mu jaar-jaaram tolluwaayam yéen ñi ay xaritam nekk ay soppeem nekk ay am di jàmmam nekk ay client am ba ci fi nga xam ne mooy usine bi nga xam ne ñoom ñoo koy servir café na ngeen ñu topp tey lu ngeen bëgg xam ci Moustapha ci jaar-jaaram ak tolluwaayam ak fi mu bëgg a jëm ak fi mu bëgg yóbbu café Tawfekh bi di ngeen ko xam kon mustafa ñoo ngi lay nuyu ah bismillahi mina seytan rajim bismillahi rahman rahim barke serigne touba barke serigne touba barke mam sey ibrahim fall ma samba ñi ngi lay ziaré bax dila jox sa waccu way di ziaré mbokk talibé yi nga andal ni ñu fago ci walu cameraman bi di ziaré tamit wa télé bi di len jox seen waccu way bu wërë wër samba nak mustafa mi ngi ni rek di as ndongalu xebu bayiko ba daru mu ci dekk bu nan daru koso talibé borom daru ñëw fii nag ci poste Thiaroye yi oh. ci année 2007 2007 nag ba léegi maa ngi ci café Touba taw café Touba bi oh. ren ji nag laa ci yokk café Touba taw feex waaw mu mel ne gis ngeen ko nii waaw ànd ko nag waa café Touba taw feex bi usine bi ngi nekk euh, marché Galtape waaw foofu daal la café gi bàyyi ko waa la bàyyi koy Moustapha daa mel ne moom jiital na laaj bi sax su bëggoon a xam Moustapha moom wax nañu sax daanaka moom fi mu fi mu ganee àdduna Moustapha fan la gën a àdduna. Moustapha mi ngi gane àdduna dëkk bu naan Daaru Koso. Daaru Koso. waaw Daaru Koso nag bu ñu ko waxee doomi sëñ Maam Thierno moom moo ko sañ. ñu koy wax sëñ Mahmadal. ibnu borom Daaru. waaw waaw ñuy laaj Moustapha it ndax it euh, li ñu lay laaj yëpp na nga jàpp ni waxaloo ñu ko ñun say soppeek say xarit ak say am di jàmm ñoo ko soxla ndax ñoo ñu yebal ci yow Moustapha ndax jàng na alxuraan waaw mu sama jàng na alxuraan. waaw ngi jàngee Daara Moussi. Daara ju salukan. Daara Serigne Saliou Kane. Daara Serigne Saliou Kane. laa jàngee alxuraan dapat nga jàngee Moustapha ndax dafa jàng ba wàcc wala comme dafa def comme genre Massamba yi ni ñu def dem ba mu yàgg ñu cëppeelu. waaw Moustapha nag jot a wàcc mais ah kon kay sori na <laughs> ndax na nasaran nasaran nak non kon ban ane euh, muy musi dafa mel 2007 nga wax ci nga bi nga ñëwee 2007 rek lan nga ñu ko def. waaw mu ñëwee 2007 nag suur bi ma ñëwee rek maa ngi egg si ay parce que une heure ci bëccëg laa ñëw mais bi ma ñëwee rek dama gàddu sama gamel dañ jaay café. ci bis bi waaw bi ma ñëwee rek. bi nga yegsee rek ci nga ñëw segg sa kafe dem jaay fan nga tàmbalee jaay kafe maanaam fan nga xam ne bi nga jógee rek da dem rek def fa sa kaas wala da doon wër ci mbedd yi wala da nga toog sur place di jaay wala nan nga doon def. waaw bi ma ñëwee nag sama mag laa fekk ci ñu naan ko suñ xaadim moom moo a teete suñ xaadim boobu ñu ngi dëkkoon ginnaaw raay ah. waaw dama ñëw rek segg comme ni gars yi def ci terrain bi rek di wëndeelu di jaay mm. waaw ba année yaakaar naa daaw laa samp benn casque ci buntu marché bi. marché Thiaroye. waaw marché Thiaroye en face station sel bi. waaw foofu laa defoon. daanaka at rek laa fa def. ñëw fii. doog a ñëw fii. ba tey ñoo ngi leen koy yëgalaat ñu ngi seen émission bu mag boobu di jëf jël ànd ko waa TMP Events daanaka ñu ngi tàmbalee dugg nag ci waxtaan wi ndax Moustapha wax na fi mu jógee wax na li mu jàng wax na fi mu jaar ba yegg si Ndakaaru ba wax na mu tegee fi mu defee keskam ba tàmbalee jaay café Moustapha ba nga tàmbalee jaay café nekk ci nan nga def sa diggante ak waa Tawfekh bi Café Touba Tawfekh seen diggante relation bi fan la jóge waaw ah, Café Touba Tawfekh nag li ma ci dugal muy benn Baye Fall bu baax muy sëñ Gana Sène sëñ Gana Sène di taalibe di Baye Fall di kenn waaw yàlla dafa dogal ñu xamante ci en face ci Pape Faye laa mën naa ne moo tax ñu xamante waaw waaw bir xamante nag benn suur ma gis ko mu dugal isati ma mën na ko waa Baye Fall lan moo la boole mbir mi mu ne ma lii dama ci yëngu uh-huh. manaka ak ah mënuma waaw muy tay ki foire foire waaw ci la expliquer expliqué na ma léegi wutal place ma ki ñun ñu liggéey ci waaw lool moom boole wa café Touba Tawfiq ma bërëb bi tamit ben Baye Fall bu baax ñu nan ko sëñ Modou di nekk teer mom momay ñewal ñëwal Modou Baye Fall ak Serigne pap ñom ñom ñoma won ñoo bi mhm. ba keroog bu fi ñew sax di indi avance man ak ñoma and waaw lool moom moom boole wa Tawfiq waaw mbokk yi kon neena aduna mom lay wax rek na nekk deug ndax li ma koy laaj ni su ci wàccoon benn kàddu bu nekkul dëgg dama koy xam ndax ki nga xam ne mooy gànn mi muy wax nii gànn seen ñoo ngi koy nuy de passage muy góor yàlla bu baax di borom bu baax koo xam ni moom li ma koy wax rek moom rijaalu bu gëm boppam la te ndaw la ñoo ngi lay ñaanal yàlla na nga àggale ak jàmm barke Cheikh Ibrahima bokk ndax it li ma lay laaj nii am na lu ma ci waxtaan ak doon la ko laaj kon man li ma la laaj rek li ma ko rek loolu nga tontu fi mu nekk nii waaw kon nag sa digganteek moom foofu la jaar ngeen xamante yéen ñaar yow gànn ba lii daal di am place bi yow danga xalaatoon ni benn bis di nga xëy am lu mel nii ci café wala déet wala nga wala da nga ci nekkoon nii rek wala doon nga rêvé lu mel nii. waaw Massamba euh, café nag moom dama ko yàgg gëm. ndax yaakaar naa loo nekk 2007 ba léegi. te avant 2007 sax. man donga daara laa dañ daan tërbi. waaw dañ daan dem tool ba ñëw. di saaf café jëmm ko. doo ko ci heure bi tam bu daan wàcc tool lan koy def waaw man sama sant sax dama ko jaay café Touba ndeysaan xam Moustapha café lan xam tey sama sant ñi ko xam bëriwul waaw ah, jeex na kon yaakaar naa café moom ah. damaa damaa delloo njukkal waaw ah, di santaan nag sëriñ bi bu baax a baax ndax yaakaar naa ne xama xamul njëriñ ñi kam waaye man xam naa ko ndeysaan waaw sant naa tamit waa waa usine bi waaw mhm. ñoom it ñu nekk ay góor yàlla di def tamit liggéey bu am solo waaw mhm. café gi set na sell na te wóor na yaakaar naa fii bëri na client yu fi ñëw mais nit sax day romb ñam kafe gi day demande ñëw ànd ak ñeneen kon liggéey bu sel rek moom moo am solo siyaar Baye Ibrahima moom moo féete ca wàllu kafe ga ak Sidna Ousmane ak soxna Mbëri ak soxna Khady Fall ak naa Omar suñu sëfoor moom ñoo féete ci côté boobu loolu ñu ci def seen kentalaay kattan waaw tey ñu ngi gën a tàllal loxo ñëpp ñu gën a xam ne café Touba Tawfekh café la boo xam ne si ne bu extraordinaire la waaw ñàkk koo ñam daal wóorul wóorul waaw ndeysaan ñàkk koo ñam wóorul sëñ Moustapha ah, maanaam li ma jaaxal mooy kafe gi dafay mel ni soo ko soo ko ñam soo ko naanee ñaari guure nga ciy sentir man bokk sama paas sama xalaat laay wax boo ko naanee li nga ciy njëkk a yëg mooy kafe Touba ak jar kese bu raxul dara dafa mel ni ñoom noonu lañ ko liggéey waa Tawfekh waaw café moom noonu lañ ko liggéey café la rek ak jar ak jar dafa mel noonu waaw loolu la te saaf bi tamit te li ci gën a neex mooy saaf bi xamul. Mm-hmm. moom boo ko seggee rek da ngay xam ne lii café Touba vrai ngay naan. waaw waaw bëri la ndax yaakaar naa yi kenn mënu leen a nax. a nax déedéet déedéet. te ñun ñuy yàgg si café kenn ñoo nax si café. Mm-hmm. dëgg la waaw yàlla xam ne su ma toogee kër ga sax bu ma xëysul su ma naanee beneen café bi. waaw day def leneen. ba ci soxna si ma nekkal. moom daf koy wax. du question la dañuy tagg suñu bopp. waaw mais ñun ña féete ci wàllu café ba daal. maa leen di wax ñu yokk ñu fi ñu teg seen loxo baax na. bu ñu ko mënee yokk ko yokk mais buñ ci wàññi dara café gi moom macha allah. ndeysaan kon nag yéen ko déggandoo yéen ñooñu nga xam ne yéen nekk ci café Tawfekh yi dégg ngeen li mu sawax ndax moom kat mooy jaxasoog doomu aadama yi moom moo nekk nit ñi moo xam li dëkk bi dund kon nag li mu wax mooy fi ngeen teg seen loxo nee na baax na na ngeen ko gën a jàpp gën koo yokk bu leen ci def leneen loo xam ne bokkut ak café Touba kese ak jar kon mooy tur yooyu mu lim yéen ñooñu mu lim nee na ngi leen sant mi ngi leen di gërëm jaaru na nag ñun tamit ñi ngi leen wax ni ñam nañ kafe gi tey xam nañ tolluwaayu café bi café brut la ndax ñun ay baafal lañ kenn mënuñoo nax ci kafe kenn nag waaw ndax café bu nekk dañ koy ñun café dañ koy dugal ci frigo sax di ko naan kon xam nañ café waaw kon nag Moustapha bu ñu bëggee xam Moustapha tey reefam ci kafe gi lan la waaw reefam ci kafe gi mooy kafe gi dem fu ne waaw café bi dem fu ne mhm. fii ba Amérique mhm. monde entier daal waaw waaw te yaakaar naa ñu ngi si liggéey tamit lu am solo waa yaakaar naa ne sax nag bu jaaree ci ci ci seen bu mag bii TMP Events bii top model bi bu si jaaree yaakaar naa say contact foofu di nga di nga jot bu soobee. incha allah rabbi waaw kon moom comme ñu ngi koy wax rek café gi moom café daal café la daal boo xam ne si ne tawféexe na daal moom dafa ëmb tur yi ma ma dafa wuyu si tur yi ah. ndax booy wax dara sax ba mu ngi da nga naan tawféex kon café gi day wuyu turam waaw waaw képp ku ko musagul nag moom la ñu wax mais képp ku ko xas ñam moom yaakaar naa di nga xam lan mooy café gi waaw te ñaan nañ yàlla tamit mu dem fu gën a kawe kawe waaw dem ba ngay dégg fu ne ñu koy yóbbu fu ne. waaw ci doole si Ibrahima. waa tamit bëgg nañoo xam Moustapha la mooy secret Moustapha ndax place bi dañu fiy jaar léeg dañuy dawal ba gaare nii parfois wàcc naan kafe ñun waaye dañuy gis saa bu ñu fi jaar dañu fekk góor yàlla yi toog ñu si bunt bi ñu toog ci biir loolu Moustapha la wala ci kafe gi la wala lan la maam nit ñi nit ñi sa diggante ak nit ñi ni mu ni mu taxee nga xam ni dafa amul jàpp na lool ak place bi loolu lan la lan la. lan la waaw Massamba côté boobu moom dañ ci sant yàlla bu baax a baax. parce que li tax ñu koy laaj jaaykatu café dañoo bari ci àdduna bi te gis nañ ni ñuy dundee ak yenn góor yàlla yéeg naan katu café yi moo tax ñu rek laaj la nga wax ñu loolu. waaw loolu dëgg la Massamba moo tax man la euh, loolu day sant yàlla bu baax a baax. xëy na doonul sunu njàmbaar mais nekkul loolu suñu borom moo ñu ko mooñaaleel. ndax àdduna amul solo. képp koo gis rek na nga ko jàppee sa bopp wala mu gënal la sax sa bopp waaye nag na nga am fulla ak fayda mm-hmm. ndax fii liggéey moo ñu fandi waaye nag mën na ni daanaka fi lan dëkk ndax li ni nekk suñu dëkk bërul kon ñi ni jaxasoon mm-hmm. maanaam day jaadu ñuy ñuy rafetal waaw man awma kenn xaar ma yàlla mais nag benn côté am naa fulla ci sama bopp maa wër waaw Baye Fall yi caaro yi yëpp wax dëgg yàlla samay xer lan ak yaay Fall yi mm-hmm, ak mbokk taalibe yi ña ma daan depuis bi door a door ñu si bëri maay samay contact damay déggante ñu wala dañuy dañuy jaar bi di may amila ba ba ma toogee fi ba di ma ñëwee fii kon àdduna nañu yaatal bu baax a baax a baax waaw ndeysaan waaw lañuy la ñuy ñëwaat ci loolu Moustapha ambulant boobu kon jot ngaa dugg ci ambulant yow bu baax ambulant 2007 ba lan ba 2000 2019 laa bàyyi ambulant Dakar Sandaga fekk non fii ci ci diggal bi rek parce que caare gi rek ah, beneen affaire la ndeysaan waaw moom daal mooy la ñuy wax rek doomu bu nekk fa nga nekk foofa la ngay liggéey ci nga mën a yaatale ci nga mën a defee lu baax te it nii ngay doxee bu la ko dara soppiloo kum mën a doon ci àdduna bu mu la soppiloo dox bi ngay dox ndax nit ñi moom kenn moomu leen nit moom bu fi ñëwee di jënd si kafe bu xoolee benn yoon li mu fi gis moo koy indiwaat li mu fi gis it moo ko fi teree ñëwaat waaw lii nag dañuy gis barab yu bari ni muy mel ak tolluwaay waaye li ñuy gis fii moom wax dëgg yàlla gis ko fenn bu ñu bëggoon a xam Moustapha café gi lan la ko apporter lagum pour l'instant manam lan la lan la apport lo xamni apporter na la ko ni ni pour l'instant ah, café gi mom man na ne suma don lim limu apporter ya xana do fi jégué limal ñaar rek way yalla do na ci la tabax le sa ci café touba gi tamit waaw eh, ah, kon café mom moy lool tayit ya xana may na mo doom adama yi ndax amna bis bu may taxawal fi foyer waaw fa fay sikor la diko jang da def nan ko ñaar yoon bay dugg 3e fois te loolu lépp mën naa ni Café Touba moo moo may lool may na ma doomu adama yi may na ma ab xamee dama fiy dem Fatick mhm. daar xafoor fu ne waaw di nuyu nag waa kuréel soppe Papay Sikola gépp suñu jëwriñ Mama Ñaa mhm. di nuyu Papay Sikola bu baax a baax mhm. sëñ taalakan ak ma Masamba yow mii <laughs> sëñ Idrissa Diop Baye Fall sëñ Modou sëriñ Cheikh Baye Fall waaw dañuy profité euh, siyaare wala sunu xarit boobu ngay wax muy sëñ Papay Sikola moom sunu xarit la sunu doomu ndey la sunu lépp la xamante nañ fu ne la ñuy dajee fu ne la ñuy gisante te it dis boo di wax suñu diggante moom da tax na amul lenn lu dox suñu diggante ak moom mu nit ku baax ñu ngi koy ñaanal ci tur yàlla yi mu ne yàlla na ko tey bëgg nañu ñëw tamit sa diggante ak Pape Faye relation bi nu mu demee waaw Pape suma diggante moom mën na ne ñun sikaru laa lan xam ndax ku dëkk daarum si moom yaakaar naa si moom ngay xam bañ na ko bu daan bisu it bu daan am ñuy julli sax waaw day dem ba kër sëñ Modou Kara ànd ak ñoom ñuy ñuy di dem ba fa ni jullee kon ñun sikar lan xam mm. mm. Pape nag ma yaa koo déglu te mosuma koo xam ba yàlla dogal euh, kasetam bi mu génnee nawaytu ci lan mos a xamante mm-hmm. mu ñëw koñ ba di sikar ñun di ko aw boobu ànd ak sax xiin yi mm. foofu lañ xamante moo mu nekk euh, jëmm ju baax mm-hmm. ku ñàkk ki ñaan bërëb bii moom moo ko tijji dafay ñëw lu waaw nekk nit ku baax nag nit ku simple dëgg yàlla mm-hmm. ak waa kuréel gépp man na ne daal am na solo daal man si kër laay dund daal ba si yow mii sax ba ngir ñu xamante yàggul dama daan dégg say son yu baax ngay ñëw dem ñu ne ma kee mooy ma sàmba soxna si du bàyyi ndax dama fii dañ koy déglu ñu ko envoyé mu nekk lu neex kon ñun sikar moom moom la ñuy dund ñun waaw mais nag suñu xol Fafay moo ci nekk dëgg la loolu am waaw mais nag sikar la ñuy dund mais suñu jëmm moom Fafay la loolu feeñ na kon nag mi ngi noonu Fafay yaa ko dégg dégg nga sa soppi bi sa xarit bi wax na li mu war a wax wax dëgg yàlla waaw loolu moom kenn mënatu cee wax dara waaw nit ku nekk nag daanaka ñëpp dañ lay yëngal si kar ngay dund waaye ku ci nekk am na koo xam ne say rabu ndëpp moo koy yëngal tey moom li mu wax leer na Pape Faye moo yëngal ay rabu ndëppam loolu jaadu na kon ñu ngi koy ñaanal yàlla na àggale jàmm te ànd bi yàlla na ko sëñ Tuubaa tëyal boppam ba nu ngeen ko bëggee rek ngeen bu ñu bëggoon a xam Moustapha moom euh, digganteem euh, ak sëriñam sama sering mom, di ko di ko ñaanal rek sun borom yagal ko fi taw wéral ko muy sëriñ bu mat sëriñ sëriñ bo xamne ku xam wa daaru mom da nga xam ne ñoom ñooy ku ñàkk caaxaan bañ na ko ba sëñ gànn mesara daf koy wax loolu am loolu am yembat du fa wa deug yalla do leen dégg ci dara lu ñaax da wala dara daray caaxaan dañ koy ñaan rek mu yag loolu taw wér borom bi biñ ko xalaatee ba ba ñu koy ubbee waxtaan nañ si ak mom monsieur Abdoulaye Mbacke ibnu sëñ Mahamadan ibnu soxna Njóoba Moxtaar di sët si borom daaru ñu ngi koy ñaanal ak magam ju tedd ji sëñ Moxtaar ak doomam ju tedd ji sëñ Maam Cerno ak kul ku yeewoo daaru ko sa rek ñu ngi koy siyaare bu baax a baax di ko ñaanal bu yàgg loolu te wér waa Kassar sëñ Moussa dafa mel ni émission bi mi ngi dem ci réalisateur yi ñu wax ni léegi mu yegg ci jeexital bi waaye balaa jeex bëgg nañoo xam ah, sëñ Moustapha Café ana lii la gën a neex loo xam ni lu la gën a neex la ci liggéey bi ngay liggéey mu kafe lii la ci gën a neex benn boo xam ne mënoo koo fàtte ci àdduna xam ne lii moo la ci gën a neex. waaw li ma ci gën a neex. mooy comme ni ma la ko waxoon sànq rek. Mm-hmm. bu ma ñëwee 2007 di jaay café di Amila ba ba yàlla dogal ñu ubbi mm-hmm. loolu moom yaakaar naa doon na li ma gën a neex suuf bi ñu ubbi fii. muy le le le 19 mars. nekk bis boo xam ne du ko fàtte mukk. Mm-hmm. waaw ma teeku ak sama loxo. waaw jox ko sama mbakkan nag xam ne kii ci ci la sama teraanga nekk. waaw ah waaw loolu daal doon na lu ma neex loolu da koy jar nit sa teraanga doo ko doo ko doo ko sànni ci àll bi loolu moom fula la sëñ seen digal sama sëriñ moo wax ni loo bëgg ma ñaanal la soo tàllalee say loxo ma ñaanal la ba mu des lenn ñu ne ko lan mu ne fulla du ma ko ñaanal kenn ku nekk yaa koy wutal su bopp waaw loolu moom moo wér bu la kenn yàqal sa teraanga sa lépp ci la nekk jàpp bu baax gën a góorgóorlu rek suñu borom dina la taxaw dimbali yàlla ko yàlla defal Moustapha bu ñu nga xam ba nga ci nekkee ci métier ba tey ndax ñu nit ay baafal lañ tàmm nañ nag gars yi leen laajee ci lu mel ni wax ni ah man de mosuma am lu ma ndax Baye Fall laa déedéet Baye Fall mais métier ak lu mu a doon dañ la koy laaj am na loo xam ne boo ko fàttalikoo doonte Baye Fall du jàpp lu métti sax di nga xam ni lii lu ma mësa a ci àdduna la ci ci liggéey bi la ma dalee lan la. waaw loolu moom Massamba su ma si mën naa ne métti na ma méttiwu ma. waaw waaye nag du dañ si sama xol. benn suur ma gontu ay 4 heures. ci ñëw ba sama benn place grand muy euh, sëriñ naar di grand bu baax. Mm. ma teg sama café ni mm. dugg si biir di wax ak ñëw mm. benn safoor fël ko. ba pare taxawut. ñu dàq ko keroog dama ko dàq ba jot ko maal oto bi mu yeboon mu def ci ay kees ma génn ko ci la ñëw nag commencé kii gars yi commencé yëngal foofu. mu ne waaw maa ko teg si yoon bi nangam nangam. tam mag la na ma yàlla jégal ñu xaqante foofu loolu daal laa xam moo ko fàttali woo dina ma metti waaye nag alhamdulilah ndax xam naa ne bi mu ko këppee keroog am naa ci loo xam ne seen sax su ma jaayaan kafe am doomu aadama yi nga xam ne ñoom ñoo newoon ci côté boobu rek ñoom ñoo dindi seen xéwal jox ma te góor googu maa ngi koy ñaanal yàlla suufam yàlla suuf woyof ci kawam nekk góor gu baax barke Sidi Biraay moo mujj sax may soxna. ndeysaan waaw loolu kon la waaw kon nag daanaka tur café bi day daal di jaadu nag kooku moom day jaadu lool ndeysaan bu amul woon lii du am. tubarkalla ñoo ngi lay bëggewaat bu baax Moustapha di la wax ni émission baa ngi nii di waaj di jeex daanaka ah, ñuy wax mbokk taalibe yi ñoo ngi nekkoon tey jii seen chaîne bu mag bi muy top model te Events nga xam ni mooy chaîne bi nga xam ni adduna bi moom la ñuy seetaan wax naa leen ko nee naa leen. facette bu nekk dinañ leen ko indil ndax la xewoon daaw bokkut ak lii xew ren ren gars yi duñ ko yóbbu ci beneen monde dinañ fekk Baye Fall bi ci toolam dinañ ko fekk géej ga dinañ ko fekk fu nekk nañ ko fekk tey nag ci Moustapha Café lañ ñëw fii Caaroy géej muy góor yàlla bu baax di ko gëm boppam yaakaar na yéen ñi ay soppeem mbaa ay client am mbaa yéen ñi nekk ak moom ca usine ba koy jox kafe nekk ay patron xam ngeen Moustapha jaar-jaaram ci kafe tey lan la kon nag jaadu na wax na wax ju am solo yéen yi nga xam ne yen nekk ay patron nee na café gi fi ngeen ko teg baax na bu leen ko delloo ginnaaw foofu ngeen ko téye baax na kon nag la mu saf ka ko mac moo ko xam moom xam na client am xam ne ñu mu jox kafe kon foofu ngeen ko teg baax na ñu profité di ci siyaare ki nga xam ni moo tax ba li yëpp am muy Gana seen ah di nit ku baax di Baye Fall di ku tànk boo xam ni ku gëm boppam la koo xam ni it amul benn problème ndax it li may wax rek góor moom jàpp ci kaw góor la fii kenn xëyu fi rek ku si nekk ba ngay ñëw daa am noo mel mais góor mooy jàpp ci kaw góor ba li yëpp am kon ñoo ngi lay ñaanal jàmm yow gànna di wax nga àggale jàmm ci barke Cheikh Ibrahima Fall di siyaare Serigne Saliou mooy Saliou borom Touba Albert Soro ñoo ngi lay siyaare ak Silla Flocage sunu xarit nga xam ne moom it lu ñu nekk mu nekk ci Silla waaw moom gis nga daanaka yi ngay gis yëpp moo ko fi def waaw Silla moom lu Baay Faal yi nekk da ci nekk moom Silla taalibe Serigne Saliou la di ko bëgg Serigne Saliou nga xam ne day toog mu yàgg sax mu taal otam dem xel comme toog def fa une semaine ñu ngi lay ñaanal jàmm dañ ñaan yàlla na la Serigne Saliou defal jàmm te taxawu la gis nañ liggéey bi rafet na trop taaru na taw féexe na nga yaatu Serigne ñu ngi lay bëggee Saliou nga xam ne yéen ñett ñooñu fu ngeen jëm yéen ay nekk waaw kon ñu ngi leen di ñaanal jàmm yàlla nañ ko sama borom defal Moussa kàddu yu mujj ci émission bi lan la waaw di santaat rek waaw di santaat di la sant bu baax Massamba mm-hmm. yaakaar naa yow ku ci am yéene nga mm-hmm. parce que jàpp nañ ko fa jàppaat ko fa yàlla dogalu ko mais tey la ko yàlla dogal dañ lay ñaanal yow it fi nga teg sa tànk ci kalimatu laa ilaha illallah bi suñu borom defal la ci lu kawe sa njort ndax ñu ngi lay suivre ñu ngi koy ñu ngi koy gis di siyaar tamit sa mbokki taal bi ngay àndal hmm. soxna yi ak baay faal soxna jaara lay suñu rak ñu ngi koy siyaar mooy bu baax a baax di taalib borom daaru di siyaare suñu mbokki yi ñun ñu nekkal ci bi di leen ñaanal ñoom mhm. ak di soxna nekkal soxna ñu koy bu baax baax di ak soppe papa Sikor laay ñëpp. kon am naa mbégte chaîne bi nag ca kaw ca kanam. TMPFS. TMPFS top modèle rek. top modèle ca kaw ca kanam. waaw wax waa chaîne ah, bi waaw di leen ñaanal rek. mu nekk ay télévision yi télévision. ci doole si bilaay. amiin waay yàlla si teg loxo. amiin amiin ci doole si rafal amiin. ngeen jëf mbokk yi kon émission baa ngi noonu téere à sa fin kon ñu ngi jaajëfal ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp. di wax ni ñogi dolé doole santaat di julli ci yonent bi di sante Serigne Touba Khadim Rasoul di wax jaarama Cheikh ibrahim Fall di sante sunu buntu ci kër Cheikh ibrahim Fall muy Serigne Cheikh roqay Fall borom ndigal di ñaanal Fall yaram Cheikh yalla na fi yag lol tan ak wér barke Cheikh Moussa Fall ñogi bëggé di sante nak wa TMP Events nga moy top model muy télé bu mag bobu nga xamni ni monde entier yi ñoo koy seetaan waaw waxoon naa leen émission bi dina ñëwaat ak doole waye gis ngeen ñi ngi sante Moustapha jara mi nga xamni mo ci bop bi di directeur bi ñong koy bëgg bu baax ak sunu caméraman yi Modou nga xam ni day tutànk bu sawar di jàmbar lool waaw ah, nga xam ni moom it da koy foo ko yóbbu fii ba Casamance day ànd ak yi dem te du du onk ñoo ngi lay jaajëfal di la ñaanal jàmm yàlla ko suñu borom defal di ñaan mbokku taalibe yi nii la ñu ko waxee nii lay demewaat ak beneen émission ak beneen ndaanaan xamuñu nag sikarkat lay doon wala jànkatu xasaayit bi la wala ki nekk ca toole lay doon wala comme ku mel ni Moustapha mii di jaay kafe mbaa Baye Fall bu nekk si leneen loo xam ne bokkul ak lii di xaar leen ñu foofu dinañ ñëw incha allahu rabbi ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di jaajëfal ñëpp di wax nag na ngeen ñëw di naan café Touba Tawféex bii café Touba Tawféex ah Tawféex na de war na Cheikh Fall Tawféex na bu a baax ñoo ngi leen xaar nag yéen waa Tawféex café Touba Tawféex seen publicité yëpp ñu ngi leen di xaar ngeen ñëw seen bu ngeen ñëwee ñu jàppandal leen ko defal leen visibilité bu jàppandal ci barke Cheikh Ibrahima Fall jërë ngeen jëf allahumma salli ala sayyidina wa sallim ak sax Moustapha daa am loo bëgg a xanaa ah, wan Baye Fall yi fi ñuy segg rek ñu nii def rek loolu waaw loolu loolu dinañ ko jël incha allah waaw loolu dinañ ko jël incha allah santaat rek waaw kon jërëjëf mbokk taal bi jërë ngeen jëf ak sant